Gueye jigéenu Mbacké mobilisation bii ngeen def mën naa ne aw ma seen fay ndax xotti lu ma leen jox ma leen paas ngeen ñëw yéen a mobilisé ma jaral leen ko ma ngeen jaral ma ko changement constant te li ñu boole mooy le développement de Mbacké mooy développement commune Mbacké mooy développement département Mbacké ngeen ànd ko ak les jeunes engagés du parti et de la coalition Benno Bokk Yaakaar au niveau du département kon bi ngeen amee initiative bi ngeen ñëw ngeen ma dina leen jàppale ngeen def conférence bu mosul am Mbàkke te loolu moo am waaye nag lépp lu ci am lépp dañ koy delloo président de la République Macky Sall ndax moo ñu wóolu moo ñu jàppale moo ñu yéene moo ñu taxaw ndax dama fekk ba nekk directeur national nekkoon DRH 2008 ba biais de manière décisive au mandat du président de la République bii weesu ak bii ñëw kon nag dañ koy jëmbal lépp bàyyee ko lépp. Macky Sall dafa jur ba dox sànq maa ngi koy remercier ci turu jigéen di remercier soxna Ndeye Seck bi tey bi wax seen tur wax ci sunu mag ñi seen kàddu rafet na engagement daa firndeel engagement jigéen di Mbàkke yëpp wax nañ sànq ne président de la République jàppale jigéen ñi ci conférence bi organisation bi 3 millions fekk na lépp li war ci conférence bi def na ndax dama ne jigéen yi buñ joxee soutien buñ joxee enveloppe buñ demandé kenn appui responsable nekk mbaa dañoo sonn dañu leen jéggati loolu lépp lu ci war dinaa ko def ñu def ko apport pour jàppale jigéen yi ay financement loolu day nekk benn jéego benn pas ci li nga xamante ne moom la président bëgg fi mel nii moo ñu jàppale jigéen ci financement yi jàppale ndaw ci liggéey ndax réew mi foofu la toll fi may jàllale ba la guddal mooy mbaa mi képp ko responsable képp ku département Mbacké képp kuy kilifa ci Mbacké ci commune ñu engagé wu ndax lañ jëm mooy élection locale la. la yor liggéey Mbacke fexe xar kanam Mbacke soppeeku koo xamante ne ci bi xam na li mu bëgg xam na li mu mën ànd ak moom ci ay vision ak ci ay programme développement kon loolu maa ngi woon ñëpp dara si waxoon la parce que dafa ànd ba liñ doon si Mbacke yàlla ñu ñu soppi xaritamu Mbacke loolu laa waxoon